salaam bu mujj muy itam actualité xalifa bi nommé la nga nekk koo xam ne yaay naatiqu rasmi lil xadara al ibrahimi loolu tam yan kàddu nga ciy jibal non bii bunt kàddu damaa gis ne mhm. bu fekkee ne zahir bi tashrif la mhm. baatin bi ñun tëklif lañ ko jàppee lisaan waaw ndax euh, xadara ibrahima ya xam mhm. xadara boobu naka la toll xadara boo xam ne léppam dafa màgg léppam yàlla léppam yonent bi la léppam jub la léppam mbaax la bu ñu waxee na yaay wax ci turi loolu mhm. dëgg dëgg loolu tëkliif bu mag la mhm. waaye nag euh, ci barke ñi nga xam ne ak yaakaar ñi nga xam ne ñoom ñoo ko am mhm. xalaat ko euh, def ko gëm nañ ne ñun xadara bi moom lañuy ñuy liggéey ci ak ci leneen ci luñ ñu sant ak luñ ñu sant buñ loo xam ne nag euh, kilifa xadara bi ci seen bopp ñoo ko gis li ñuy def rek mooy ñaan yàlla naa fawqa maa yazunnuuna. amiin yaa rabbi moo def ñu ëpp luñ luñ jot. amiin yaa rabbi ba nga xam ne tamit dañ ci mën a liggéeyal baay. amiin yaa rabbi lépp loo xam ne fii muraadu Cheikh yi ñun loolu mooy suñu itte. waaw ñu toftal ci